azadun ya wara wa barzakh shukru minni asalaamaaleykum wa rahmatullahi bokki jullit yi jàkkaarloo ñoon di ñu seetaan noo ngi am di ànd ak yéen fii ci barab bi nga xam ne moo di Daaru Salaam Bokki Barga Daaru Salaam Bokki Barga di dekku Cheikh Abdoul Ahad Mbacke bi nga xam ne e, bari na e, ci histoire taarixu Cheikh Abdoul Ahad doo xam ne fii la amee woon mu nekk barab boo xam ne ci jamono ju yàgg e, lako ko sancoon fekk si woon fii mm, koo xam ne kenn la ci njabootu Cheikhul dem gi di Serigne Aliou Diouf Lambaye yaakaar naa ku xam taarixu yoon wi da nga ko xamaale eh, Cheikh Abdoul Ahad nag sanc ko eh, ci jamono ju yàgg daan fi liggéeyal yàlla ba batale ko ba ba rafaatale ko doomam ji nga xam ne tey jii moo fi toog di Cheikh Abdoul Ahad na fi yàgg lool ta ànd ko wër mu di Serigne siidi Mbacke moom Cheikh Abdoul Ahad Eh, yaakaar naa ne kuy dégg sëriñ Sidi da nga ko dégg ci maandu dang nga ko dégg ci gàtt ab tànk da ko dégg ci bëgg sëriñ Touba waaye dang ko dégg nag ci gëm Cheikh Abdoul Ahad lool waaye boo fi ñëwee nag da ko fekk mu di ab liggéeykat boo xam ne ki ko toqi mu di sëriñ Saalihu Mbàkke eh, seq ko ak sëriñ Abdoul xam nañ ne yar nañ ko ci jaamu yàlla ak liggéey tool yooyu nga xam ne nag at mu jot moom lay sant rakkam di taalibeem di sëriñ Amsatu Mbàkke mu Cheikh Abdoul Ahad mu di ko bàcc ak di ko jëri di ko dajale eh, tool yooyu ci lañ toll bokk yi ngeen ak naafi nii muy tool boo xam ne nag eh, ku gisoon bopp daaw ba boo fi ñëwee danga xam ne eh, bopp ron bii ñaar ci ne bopp daaw ba waaye sëriñ Sidi itam ku ko xam xam ne da du baylu day bay baylu mooy eh, yónni dongo yee ca tool ya ne ci biir kër ga sëriñ Sidi nag bu jiw yu ñëwee ci tool yi mook dongo yee bokk na ci tool yi bu ñu ne ci waar wi mu ne ci kaamil bi wala xasida yi ànd koog ñoom ba wàcc jot mu wàcc àndaat ak ñoom dellu ca tool ya bu ngoonee mu gont siwaat noonu la daan di liggéeyee waaye way juróom bu baax ba Cheikh Abdoul Ahad waxoon na ne ay tool saa yu wàccee say mbag na war say bët sëñ Sidi nag eh, tool yi du wàcc ay bëtam benn yoon loolu moo tax ñi ngi fii ci biir tool yi eh, ànd fi ak Serigne Khadim Diouf eh, yaakaar naa ne moom itam ku ko xam xam ko ci waar wi ñii bi lambay gi nga xamante maamam moo ko sancoon waaye itam nag Cheikh Abdoul moo ko toqi yar ko Eh, Serigne Sidi eh, Serigne Amsatou woo mbooleem seex si aju ci kër Serigne Abdou Lahad gépp bàyyiwul kenn dégg ngeen ko ca appel ba ñu ngi fii ci liggéey bi nag bokk yi ñoo xam ne liggéey bi liggéey bu mag la boo xam ne doon loo xam ne lu ñuy cof lay doon liggéey la laaj nga xam ne naaf yi boo ko dee xayma eh, mënee su koo xayma ci ab bariwaay waaye nag gis na ne koo gis xam ne gerte ngi ci donte nam waroon a mel dëgg dëgg dëgg sax melu ko ni waaye sant na si yàlla ci li ci ne ndax boo jàkkaarloo gooñ gi da nga xam ne am na rendement ki ko doon bayit sonn na ci ndax euh, suuf si gisoo ci xaaxaam gisoo ci ñax gerte rek nga ci gis kon loolu tegte leen dongo yi ko doon bayit jàmbaar waaye damay ànd ak sëriñ xaadim euh, euh, sëriñ xaadim yaa ngi ci tool bi sëriñ Amsatu woote na ko waaye sëriñ Sidi jàmbaar la liggéey bi ana lan kàddu nga ciy yëkkati. subilaay jërëjëf suñu fàllu ñu ngi sant bu baax te ñaan yàlla sa borom yóbbu ñu ci jàmm fekk ko ci jàmm te eggale yëpp liggéey bi nag moom noonu nga ko waxee rek Daaru Salaam moom sëñ bi dafa bëgg ku ko fi ñëw fekk ko fi rek ñëw ko fekk ko fi rek njariñ la wax dëgg laa nga ñëw di fi liggéey noonu ko sëñ bi daal di koon du bëggee woon nga ko fi mas a fekk sa ajo mën na faa fajo sëñ si di foofu rek la teg tànkam ku ko fi mas ko fi fekk rek mu xam ni sa diggante moom desaloo ko dara léegi liggéey bi nag moom liggéey bu rëy rëy la boo xam ne bu ko kenn cof ndax nu liggéey daa ba tolloon def naa bii war na koo ëpp te liggéey rek moo ko jeexal ñun waa kër sëñ bi laat nag am nañu aw sas ndax lii du ca du caaxaan te sëñ bi wut ku dikki barkeelu ku dikk toog liggéey la bëgg ànd ak moom liggéey bi ba mu jeex ndax moom fii bu duggee tool bi dootu dootu fi génn te ñaanal nit ñi sëñ bi fa sëñ bi fam fa mën a nekk bëtam ak noppam du jóg ci liggéey bi kon nag ñu ngi woo ñëpp ñu ñëw te kuy ñëw xam nga li nga war a indi muy bagage yu mën a lu mën a bàcc wala lu man a bees kuy dikk loo loo faj fekk teg ci liggéey bi àtt na ko mën sa sa borom mën na ko egg loo fi yéene rek mën na ko fejal mm-hmm. tool yi tool yi barkeelu la te sëñ bi fonk na liggéey bi sëñ am sutu mu ngi koy liggéey lépp jaral na ko léppam mm-hmm. ndax noppaluut boobaak léegi mi ngi bëtam ak xelam ak xalaatam lépp mi ngi liggéey bi koo xam ne sëq ak moom dara daal nga fa wala nga sëq ak moom dara sëñ bi laat wala nga yaakaar lan na ci kër gi mi ngi la ciy woo bëgg nga ñëw ci te jàpp ci noo ki mën a jàppe ndax liggéey la tool bi yaatu na lool lool lool lool liggéey bi yaatu na lool lool lool te ñun rek ñoo ko fi jëlee moom na fi bàyyi waaye ñoo ko fi bàyyi nañ sa borom dimbali bañ mën a ba mën a eggal suñu yéene defee ko ni ko sëñ bëggee te mu nangul ñu ko ci dara suñu Tuubaa ndax lii tool bi li muy rëy suñu naw rek doone yu ndaw ñoo ko ñoo ko taxaw ba mel nii mm-hmm. gisoo ak ñax gisoo fi xaaxaam gisoo fi dara te ay yu ndaw ñoo ko def mm-hmm. pas te pas rek lañ ko defee te loola ñoom ñoom dañ leen koy jur mm-hmm. ñun nga leen ci jur nag nañ ci nañ leen jàppale ba li sëñ bëgg ci tool bi ñu am ko ci fu sëñ bi amee li mu bëgg daal dañ am li mu bëgg jërëjëf jërëjëf sëñ Xaadim yaakaar naa ne bu sëñ bi amee li mu bëgg rek ñun sunu bëgg daanañ ko daal di am eh, kon nag liggéey baa ngi nii incha allahu rabbi eh, ajjuma la ñëpp war a fanaan si gaaw ñu tam <coughs> ñu tàmbali ko yaakaar naa nag dégg nañ appel bi dégg woote bi kon mbokk yi nga xamante ni ñoo ngi jàkkaarloog ñu ci seen internet yi di ñu bàyyi xel ci whatsapp yi ak di ñu xool ci facebook bi nañ ñëpp gisandoo liggéey bi xam ne du liggéeyu barkeelu liggéey la laaj liggéey liggéey laaj kon sëriñ Amsatu liggéey la woote waaw eh, sëñ Xaadim dégg nga ko nee na mi ngi soñu waa Lambay gépp di soñu waa ñi bi kon euh, seen bokkum taalibe la Fallou Galass Syll la ànd ko yéen fii ci Daaru Salaam Boki Barga ngir waajal liggéey bi nga xam ne sëriñ Amsatu woote na ko woote ko ci turu sëriñ Sidi Mbàkke moom Cheikh Abdoul Ahad jàmbaar ji yal na leen fi yàlla boole yàggal te yàggal fi mbooleem njabootu sëriñ Tuubaa gépp yàggal fi Cheikh Mahamadul Muntaxa doole ak wéram waaye faj aajo yi mbooleem ku ñëw Daaru Salaam Boki Barga wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.